ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen la loolee xëy woon ginnaaw ay lakk-lakk yu métti yu mu ci amee woon ñu yóbbu ko urgence ca l'hôpital CTO mu nekk fa nekk ci coma bakkanam mujj na faa des jabaram ji ko def lool journal L'Observateur xëy ñu yeggee na mu tegee ay plan ba mu jur njombe li tey am na sax ñu ne jëkkër ja da ko doon nax woto bu mu jënd la ko doon wax waaye laata loolee di leer ndaw si dem na wuti essence am denc ko ci kër gi bésub ñeenti fan ci weeru novembre ñoom ñaar ñuy xuloo di jàppante waa ji dem dugg ci néegam toog jàpp njàmburam ngir bañ wax ji bari ndaw si fekk ko fa jël essence bi sotti ko ci néeg bi laata xaadim njaay di jóg di génn ndaw si taal na néeg bi ba tëj ko fa dem vox populi nañu waa ji di xaadim njaay dem na ba faw kàddu yi mu mujjee wax laata muy faatu moo di wuy rey na ma jabar ji ko taal ñu naan ko Aïda Kaboro Mbàkke li mu ëmboon ba diis moo tee yoon teg ko loxo wësi na keroog altine yéen moo mujj sax césarienne waaye sandarma ya ñoo ngi ko jongoro ca buntu clinique ba waaye sandarma ya ñoo ngi ko jongoro ca buntu clinique ba la sine nañu jëkkëram ja di ndéem si yàlla xaadim njaay ma nga ñu denc ci armeel yoof ya anki dina kay nañu démb ba ñu koy rob mer ak xol bu tàng moom la ñu gënoon a nimmi ko ca rob ba xaadim njaay dem na bàyyi ci ginnaawam jabar joo xam ne guddi yu ñu toll moo gën a dugguru ba ndaw si ayda mbàkke la tudd doom la ci sëriñ babacar mbàkke mu kaboro dafa ëmboon waaye wasin na keroog Ndiaye ba mu jaara ca faatu tama ëpp koy buum jamono ji ne léegi mbiri assassinat la koy toppee fa la ba jëm ñu dem ci l'observateur mi ñu xëy xamal ci xëta mu njëkk fa kilifay tuwaawoon yi bëgg a jëmee gàmmug ren gi maanaam orientation yi jikko yu yàqu yu ci réew mi journal groupe Futurs Médias bi mi ngi ñuy wax ne dëkkub Seydi Hadji Malick Sy ba mu di tiwaawoon ñoo ngi koy ñaawlu kàdduy sëriñ Bay Si Abdu ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax naan fi ñu toll ci réew mi Sénégal toll na foo xam ne nit ñi jëfi bàyyi ma la ñu yore moo ko wax moom sëriñ Babacar Si Babacar meneen mu wax ci leneen ci feneen moo di Babacar Mbaye

ñuy waxee ci direct info waxi filao journal Le Quotidien moom ab enquête di gëstu bu yaatu la xëyee ci àll bi ñuy gor ci lu teguwul ci yoon ca gëstu ba gis na ne bant bii di veine amatul ci réew mi ndax gaa ñi saax-saaxee nañu ko leneen lu mu gisaat ca gëstoom ba moo di trafic de bu gi bokk na ci liy dooleel ñàkk kaaraange gi am ci àll bi kaso bañ ña fa nekk kenn ca di Xalifa Ababacar Sall meerum Ndakaaru ba woon journal Source A ma nga ñuy nittali ak dundam ca kaso ba ba ñu ko jàppee dugal ko ci kaso bi juróom-ñaari fan ci weeru mars atum 2017 ak léegi léegi réewum Amérique baaxee na Sénégal beneenub dank bu toll ci ñetti téeméeri milliards ak fukk ak ñeent soleil national moo ñu ko xamal koppar yooyee mi ngi tënku ci Millennium Challenge Corporation mu soxal nag wàllu énergie wàllu croissance ak it fexe xeex ñàkk journal bi nañu cib communiqué bu bàyyeekoo ci ambassade bu Amérique fii ci Ndakaaru ci la ñu jàngee ne conseil d'administration bu Millennium Challenge Corporation ak gouvernement bu Amérique juboo nañu ci yëkkati koppar yu ñu toll dugalal ko Sénégal ci Millennium Challenge Corporation docteur Thierno Thioune di maître conférence ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar ni ci xët yëglekaay la Tribune bor yu rëy yi Sénégal amee loolee jaaduwul Abdoulaye Wade muy déyante ak Pierre Goudiaby Atepa photo boobee moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal moom Abdoulaye Wade ba mu yégée ne Pierre Goudiaby Atepa candidat lay doon ci wotey présidentielle yi 2019 yi da ko bind ab lettre di ko ci encouragé ak naan ko maa lay ñaanal ngir li nga soobu nga ci ndam ndax bis boo doonee président de la république dafay mel ne sama dooma falu ndax yow ne yéenekaay bi na ñu am na ñeen fukki at am na dafa am benn boutique boo xam ne xale ba koy gérer xale bu góor la fukkeet ak ñett la am femme bi heure bu ñëwee rek di ko lambatu ak di ko def yëfi saay-saay xale bi dem ba tàmm ko dem ceet ba jaaree ca xam jigéen heure bu ndaw si ñëwee def ko lim koy def xale bi yulli comptoiru boutique bi jox ko les éco nañu fu ne ndaw si yóbbu na fa xale ba ànd ak moom di si mari ngàññam nijaayu xale bi moo ko yëkk jël xale bi yóbbu police fa la dil ba kalaatee